wala ginnaaw Ndeye Mbacke. waa ji li combat bi plateau dafa jëlee mais bu def leen ndànk xale bi dina ko njuy na plateau def ndànk rek diriger combat bi ndànk-ndànk. plateau ma ngay xeex yanda plateau. ya ka plateau daan na. plateau daan na ko. plateau daan na yanda. Plateau daan na Yanda Plateau daan na ko ndeysaan Plateau daan na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 dënn la dënn day Mbàkke yaa wóor sama doom day. mooy plateau ñu gis combat bi ko ànd dënn lan la. combat bi dëgg la maa ngi sant yàlla quoi mais def naa erreur nu nu ma bëree baaxul parce que damaa xeeb sama adversaire te ku may xeeb daanaa la ma diriger entraînement raxal rek na dem tërëni waat mais ndey Mbàkke di la sant baax yow du ma ko taay di ko wax yow di la sant bu baax xam nga nu ma bëree billaay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 jaajëf